salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi Queen Biz yaakaaram tas na ndeysaan xoolal ni mu daan solee mayo Sadio Mané bi nag juutal taat bi jël ñaari xottu taat yi bii mu jëmale ko pegg bi sowu juutal taat yi nag wengal benn xott bi wan ko nii maane ay waay bii foto waay waa Kër Massar amati nañu ndam kan la Sadio Mané di takk ñu ne goney Kër Massar daan naa dégg ci waxi mag ñu ne jigéen day gàtt tànk te woyof làmbañ maa ngi koy door a gëm nag ci ay saam yi Sadio yow lay takk saajo Mané dalay takk te mosoo ko doxee mosoo ko waxee ba si koñ bi nga dëkk ba ñu lay takk xamuñu woon ni yow la saajo Sadio Mané takk wala sax bu ñu ko wala sax bu ñu ko xamee xàmmee la ndax seer ak sa teggin lii nag exemple la ci bépp jigéen naam defaru baax na waaye di wane si cër wala di sol lu bon ngir góor gis la bëgg la takk la jar naa bàyyi xel l'essentiel daal maa ngi ñaanal képp koo xam ne déggagul alxayri yal na la suñu borom boole góor gi gën si yow góor gi la yërëm yiir la amin dong la soxla ci commentaire yi di ko ñaanal kii di ay saa yal na ko sunu borom jubale ak Sadio Mané képp ku amul xolu ki ñaan bësal jëm dugg ci commentaire yi ñaanal ko ca commentaire yàlla